ambulants yi par exemple immigration clandestine baisse du loyer les inondations là c'est des questions yi nga xam ne dafay toucher directement askan wi nga xam ne tey ñoom ñoo ko fi teg comment est-ce que vous analysez cela waaw merci beaucoup en fait <coughs> déjà euh, je pense que fi mooy commencer mooy euh, suñuy wax c'est important euh, ñu bàyyi xel ñi ñuy déglu d'accord ku nekk am nga droit wax lu la neex c'est vrai mais je pense que am privilège nekk si télé di wax euh, parce que ñi ñuy déglu ñu am na ñu bëri ñoo xam ne ay borom xam-xam ne ñu ñuy déglu donc c'est important ñu bañ a wax yenn wax yoo xam ne tegul maanaam parce que boo ñëwee ba ci télé di wax ay garde robe président bi euh, je pense que c'est quelque part un peu manqué de respect parce que mun nañu wax lu gën a euh, je veux dire ça n'a sens léegi comme ni nga ko waxee au bout de cent jours c'est important que le président de la République mu toog janoog askan bi parce que askan bi moo ko fal et moom il a si bien compris que il a d'abord invité la presse locale et c'est vraiment mal je veux dire euh, bu ñu waxee ne c'est une presse sélectionnée je pense que loolu ma loolu du dëgg en fait parce que vous pouvez pas me dire que TFM je pense je prends juste l'exemple de la TFM hein. on peut pas dire que c'est un média de de de Pastef donc d'accord naa les critiques sont importantes mais des fois il faudrait que tamit li ñuy wax ñu jéem ko teg ci euh, lu yanu mais mhm. maintenant euh, par rapport ak euh, li mu doon wax au niveau des cent jours je pense qu'un président de la République euh, si je reviens un peu en arrière par rapport ak ñu doon wax par rapport ak euh, les jeunes yu dee ci géej gi le premier ministre wax na wax na ci bi mu nekkee à Saint-Louis je pense que mu ngi là il s'agit du président Là, il oui, oui, fait, le, euh, le président la République, il ne peut pas de tout. am na yoo xam ne c'était une émission qui ne durait pas vingt-quatre heures. je pense que il appartenait aux journalistes de poser les questions journalistes amoon nañ sañ-sañ poser interpeller président ci question bu leen neex. ils l'ont peut-être que ñoom xool nañ jugé nañ question yu gën a am solo ñu posé ci président de la République ce que je voulais juste dire parce que le premier ministre quelque part aussi quand il parle il parle au nom du président de la République donc quand il se prononce si jeunes yi ci géej gi c'est comme si le président s'était prononcé par rapport aux inondations pour ñëwaat parce que des fois comme je dis encore waxtaan neex na mais nañu loo xam ne moo yanu maanaa te mooy dëgg euh, je prends l'exemple du ministère du ministre euh, bu gérer tout ce aménagement première pluie bu mu ñëwee tous les Sénégalais ont vu que dafa doon am na fi mu doon jëm mais quand il a vu que amoon inondation rapidement il a rebroussé chemin pour dem Kaolack donc ça veut dire que ñun dans notre manière de gouverner on met toujours les préoccupations de la population léegi c'est c'est tout à fait normal que ñi à euh, pre ñu am problème ak ñun nu ñu parce que tout simplement le rapport que nous avons avec le pouvoir est différent de ñoom rapport bu ñu amoon avec le pouvoir le président euh, euh, Bassirou Diomaye fay dafa oyofal nguur gi il a compris il a eu l'intelligence de comprendre que yàlla mooy joxe nguur que moom tey du jàmbaaram xëy na moo tax mu nekk président de la république mais yàlla moo boole ay concours de circonstances ba mu nekk président de la république loolu daf koy libérer mu xam ne qu'il une mission pour servir nguur tiitalu ko mmh. moom jàppul boppam un roi comme l'ancien président qu'on avait donc c'est import c'est c'est normal que quelqu'un bu jógee APR mu am ay problème par rapport ak ñun relation bu ñu am ak pouvoir pour dara leen seen xel le président de la République président jëlul nguur gi comme ku nekk un roi il a des prérogatives il va communiquer sur yenn sujet yu am solo mais les autres membres du gouvernement le premier ministre en en l'occurrence et les ministres vont aussi communiquer sur certains sujets président nekk fi pour di dugg ci détail bu nekk loolu boo defee dafay mel ni yow ñi nga dénk matuñu ko alors que ñi ñi mu ko dénk mat nañ ko donc pour dire que ñun ñu ngi rafetlu sa communication parce que déjà il a montré ni mu gëmee nu mu fonkee la presse locale yéen yéen ay journalistes ngeen ñaata yoon la président Macky Sall woo presse locale xanaa mu toog ba tiit wala affaire yi cool mu woo leen mais ñun dañoo jox gëdd suñu presse locale parce que dañoo jox gëdd suñu réew moo tax la première communication du président mu def ko ak la presse locale et loolu je pense que vous êtes des journalistes vous êtes des experts on ne peut pas inviter toute la presse il est clair que peut-être que prochaine communication bi Sen TV mooy dem ñeneen ñooy dem ñun loolu lañ gëm donc fu may terminer rek mooy aujourd'hui cent jours parce que tamit encore une fois cent jours mënoo ci régler problème sénégalais yëpp c'est impossible et on n'a promis aux Sénégalais qu'on allait régler leur problème en cent jours gis nga hmm. problème nag boo koy commencé régler da nga koy il faut nga def une analyse de la situation tu ne peux pas juste venir régler un problème les inondations fii lañ sont restés pendant douze ans ils n'ont pas pu régler ce problème là inondation déjà ñu jëlee leen fi waaw waaw <laughs> pas des marchands de rêves inondation c'est un problème que des gens waxuma sax 12 ans ça plus de plus ñun nekk gone ba léegi inondation dafa am donc c'est un problème qui demande une analyse sérieuse et le président de la République a instruit son premier ministre de faire cette analyse là ñu xool ceytu xool lan mooy les causes fondamentales lan moo tax inondation yi mënuñu ko régler mais aussi milliards yu ñu doon ndamoo ñoom parce que ñoom toogoon nañ fi ay période ne ils avaient réglé le problème des inondations fekk far nag yàlla arrêté taw bi période boobu les milliards qu'on a engloutis durant toutes ces années pour la résolution de ce problème là il faut ñu xam fu mu jógee il faut ñu xam fu mu parce que si on a dépensé des milliards et que les problèmes persistent c'est que soit on a fait une mauvaise analyse soit xaalis bi fu ñu ko war a dugal dugaluñ ko donc voilà fa laa bëggoon yam pour dire que il est tout à fait normal et je suis sûr que tout au long de l'émission dañuy am problème pas problème mais en tout cas angle ah, vision yi du bokk parce que on a on a des rapports avec le pouvoir tout à fait différents ñun pouvoir fëkkuñu fëkkuñu très bien voilà c'est bon à savoir je veux juste que du président nous intéresse lorsque président bu muy ñëw ay Lagos la doon sol ay dàll carax ay dàll ñuy defaree Médina tey ñu gis ko muy sol ay Gucci muy sol ay Berluti comme le premier ministre doon takk ay montre mati di tey ñu gis ko muy takk ay Gucci di takk ay wët suwët di takk ay montre yi jar 3 millions 4 millions c'est normal ça nous intéresse parce que la ñëw ay ay ay dàllu ngaay la doon sol ay la doon sol ay ay kii la doon sol yoo xamante ne c'était 3000 francs 4000 di que dafa ne amul dara. très bien bu muy ñëw barki demb la. leneen li mooy leur demi-jeu aussi sa démarche nous intéresse mooy Sonko mooy lan lorsqu'il vient lui aussi sa costume lu muy sol ñoom suba lu ñu sol ça nous intéresse parce qu'ils avaient dit qu'ils n'avaient rien que ay pauvres lañ est-ce que tu comprends maintenant bu ñu bëggee jiñ ay ñin ay on n'a pas pu gérer la situation kii suñu ko débat nee na def na dix ans ci inondation géej la nekkoon tey amaana génn na am na jéego yu ñu am na fu ñu fekk inondation am na fu ñu ko jëlee am na fu ñu ko dindi. am na koñ yoo xamante ne tey man je suis de yëmbal. am na lu ñu fi def quand même effectivement mais tamit boo nee defuñu dara ci inondation dinañ ci gën a ñëw alors dañuy jox kàddu gi Mourtala après après la sortie évidemment du président Diomaye il y a eu d' autres sorties euh, ñi nga xam ne dañu boole boole seen bopp ci opposition ku ci mel ni euh, Thierno Bocoum ku ci mel ni Bougane Gueye et euh, naturellement l' alliance pour la république ku ci mel ni Bougane bu ñu jëlee ka moom dafa jàpp ne deal dafa am déjà mandat ci diggante le président euh, Ousmane Sonko ak Diomaye ak ki fi newoon président le président Macky Sall alors loolu ki ko confirmé d'ailleurs démb sax mooy euh, euh, le ministre Cheikh Omar Anne l'ancien ministre Cheikh Omar Anne à travers une émission d'une télé de la place naka nga jàngatee cette sortie également de Bougane